نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bu ñu santaate sunu boroom noo ngi koy bàkk di ko kañ ci mboolem tawfiq yi mu nuy defal ak yërmandeem ji muy sëmbërtal ci sunu kaw ñu ngi tuub di jëm ci suñu boroom di muslu ci sunu ban bañi bakkan ak sunu ñaawtee fi jëf nu ngi seere ne ku sunu borom jubal na ko ko koy aji jub ba faaw te dara mënatu koo dëngalooti ku sunu borom bàyyeeg boppam ba mu sànku kooku aju sànku lay doon ba faaw te dara mënatu koo gindeeti noo ngi ñaan sunu borom mu boole ñu ci jaamam yi muy gindee dellu siwaat nañ ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquranul karim démb sunu jeexintalu bind moo jeexal suuratu sajda tey di ñeenti fan ci weeru koor ñu war a tàbbi ci suuratul ahzaab suuratul ahzaab nag dañ koo tuddee suuratul ahzaab ndax as ahzaab jamu xisb maanaam xisb mooy parti wala mbooloo am na sabab su tax ñu tuddee ko saar wi ndax xam ngeen yéefari dañoo allié woon ànd def ab dank ngir dar ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ci ay technique loo xam ne lu jommale la waaye yàlla ñëw ak kàttanam tas seen mboolooma wedemal naafiqiya dolli ngëm yàlla ña gëmoon moo tax mu teg ci ne wa ma zaadakum illa imanan wa taslima ñu gëmoon yàlla def defe suñu borom ne daf leen dolli ngëm waaye ña nga xamante ni ay naafeq lañ danañ maa waadana allahu wa rasuluhu illa gurura yàlla ak yonente bi daal dañuy bëgg a war rek kon saar bi loola tax ñu tuddee ko al ahzab saar wi ci saar yi wàcc wàcc madina la bokk saar yi ëpp yi nga fekk su ma waxut lépp yi traité mbirum naafeq ci alquran boo seetloo Madina la wàcc ndax Màkka moom góor yàlla yu dëgër ñoo fa nekkoon yoo xamante ni ay tappale ak i soofantal dañ koo xamut biñ ñëwee Madina nag mbooloo mi bari raxma am ca moo tax mbooloo buy doog a tàmbali cellaa ngay june mën nga ko caa gis waaye bu dee ba ca biir rek nga tàmbalee gis ay yëfifan yu ca bokkut àddina noonu la tëree kon sunu borom di wax ci saar bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا kon juróom-benni aay yooyu bi xusni tawfiqil baari jalla fi ula mooy nekk sunu bindab tey wax naa leen ni suuratul ahzaab saar la wow sunu boroom da ko tuddee mbooloo yi ngir mbir moom ma la wax sànq te dina gën a leer ci biir saar wi ndax dana am bind boo xam ni ca loola rek lay wax ñaareel bi mooy suuratul ahzaab ak suuratul nuur ñaari saar lañ yoo xam ni mën lañ leen a takkale mën nañ leen a takkale ñu ànd yaakaar naa ñi fàttaliku ci yéen suuratu nuur xaw tuuti kon nga ni suuratu nuur ak suuratul ahzaab ak suuratu nisa ñetti saar yi moom ku ko teewlu te déglu ko te comprendre njàngale ya ca nekk insha allahu jàppal ni borom xam-xam nga ñetti saar la yoo xam ne biñ ci defee taxaw seetlu xaw tuuti kon nga ni genn wàlluk jàngale diine yépp mi ngi ci defal seetlu googu suuratu nisa suuratu nuur suuratul ahzaab ñetti saara ngi yoo xam ni boo ci seetloo da ngay gis ni genn wàllu njàngaley lislaam yépp dajaloon na ci biir ñetti saar yi benn ngoo beneen bi ci des mooy da ngay seetlu ni njàngale yi ëpp solo yi nu aajowoo muy nécessité dund muy mbirum biir kër ak luy jaxaseeg njaboot ak lu koy régler sunu borom daf koo def ci biir saar yooyu ñetteelu seetlu bi mooy suuratul ahzaab ak suuratul nuur dafa am umum ak xusuus suuratul nuur saar la woo xam ni njàngaley lislaam yi moo ci nekk ñun ñëpp a ko bokk waaye gis nga suuratul ahzaab nag dafa ñëw féete ko kaw tuuti ndax ni mu ko féetee kaw mooy bee bi njàngale yi dikkee dafa dal ci sunu kaw ñun ñëpp te yonent bi mooy njiit waaye suuratul ahzaab bi mu yegsee joxañ bi suñu borom daf koo teg ci kaw yonent bi ak ay soxnaam li waral loolu mooy léeg-léeg booy digle loo xam ni kenn waru koo sàgganee da ngay tàmbalee ca kaw doog a ñëw ci suuf ndax bu fekkente ni am mbooloo dañu am kilifa ñu ñëw mbir ya dal ca kaw kilifa ga kon ña ca suuf moom taxul di wax boo seetloo suuratul ahzaab ay dal ak i jubbanti ak i orienté yu dal ci kaw yonent bi ak ay soxnaam bal sax nag ba sunu borom dig fa soxna yonent bi xéewal yu rëy ak pay ci kaw bu ñu jubalee ndax ñoom seenu jubal mooy gën a baax jubalu keneen waaye nag mu ni lu ma duma ki diw ñaar laa leen koy duma bu dee da ngeen a jàdd yoon parce que am na kilifteef yoo xam ne bu ko nit yoree day su ko jàppalati ngànt loolu ngeen bàyyi ci xel beneen bi ci des mooy su fekkee xitaab bi bi mu ñëwee nii la joxeñee yonent bi keneen ku dul yonent bi war na caa tiit ndax yow min baabi awla kon daal li ma bëgg a wax mooy suuratul ahzaab ak suuratul nuur ak suuratul nisa bu ngeen fàttaliku ca suuratul nuur newoon naa leen nu nawwiru bi suurati nuuri buyutanaa suuratul nuur daal di ko jàngale ci biir kër dafa mel ni rek kër gu la demoon amul courant nga xëy ci ay làmp kër gi yépp leer ndaxam bu ngeen seetloo suuratu nuur sunu borom subhaanahu wa taala leeral na ci mbiri biir kër loo xam ni nit jàng na ba sori sax te du ko xam moo tax ma ne la boo peegee se- saar yi di nga nekk borom xam-xam gis nga suratul ahzab tamit kazalik waaye suratul ahzab tamit nag di traité mbir mu am solo mooy mbirum naafiq te loolu dana am bind ak boppam damay wax ni suratul nuur ak suratul ahzab benn boo ci xool bind buñ ci am bu nekk rek yaakaar naa ni buñ bëggee def fu nu romb def ak taxaw seetlu taxaw moom duñ gaaw a romb bu ngeen fàttali ko suratu nuur waxoon naa ci lu bari donte am na ci ay masail yoo xam ne nag buñ ca yeggee moom deesu ko tëb déedéet am na masail yoo xam ne masail fiqhiya la manes na koo tëb ngir ay mbir rawatina ba ñu xóotal guy génne bind bi ci tafsir yóbbu ko ci fiq waaye am na masail yoo xamante ni ëpp naa romb jàll ndax dafa nekk bindab fiq nekkaale bindab tafsir tamit kon kenn du ko bàyyi yooyu nag dina gën a leer ci bind yii di ñëw insha allah ci suratul ahzab beneen bi ci des mooy suratul ahzab ci boppam njàngale yi ci nekk dafa toll ni njàngale yi suratul nuur donte am na ama xusuus ndax beekat dafa dugg ci kër yi ñëpp waaye bii nag dafa gën a sëpp ci kër yonent bi ndax mooy balluwaay bi moo tax bi yàlla lay wax ñu jàng alquran dafa tàmbalee ci yonent bi ak ay soxnaam wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kaana latifan xabira ndax kat bu fekkente ni alquran ji fa muy sëpp di fa wàcc ñooñu ñoo gën a sàggan ci téere yàlla bi laa shakka ni keneen ku ci sàggan it kon yeddaange ji ñuy yedd kii moo war a ëpp gi ñuy yedd ka ca des moo tax waa kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom kat dafa bokk ci liñ doon bàkkoo ak di ko ndamoo mooy seen kër mooy balluwaay bi nga xamante ni fa la alquran di génnee kon ci gàttal yooyu ay ishaaraat la ay junju waaye dana gën a leer ci biir saar wi sunu borom subhanahu wa taala ginnaaw bismillahi arrahmani arrahim mu tàmbalee saar bi yaa ayuha nabiyu sunu borom mu ni ee yow yonent bi ittaqillaha ragalal yàlla wala tuti alkafirina bul topp yéefar yi walmunafiqina bul topp tamit nafiq yi ci seeni wax ak seeni def-def mbokk yi aaya jii de aaya ju rëy la ci xolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi bu ragalut yàlla keneen du mën a ragal yàlla subhanahu wa taala moom la waxoon waaja waaja borom leel ba nga xam ni dafa dafa ñàkkee woon teggin yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi àtte ba noppi mu ni ko sa àtte bi maanduwut yonent bi mer ba bañ ji bët yi xonq cur mu ne ko bu fekkee maandu ma man yonent yàlla bi kan nga yaakaar ci kaw suuf ni mooy maandooti daal di mer daal ni kii ku ko nar a topp di nga gis ci askanam ay nit ñu saay-saay ñoo ci nar a génnee ñoo xam ne dañuy rocceeku ci diine comme ni jaasi di rocceekoo ci mbaram ca kookee noonu ca la xawaari ji bàyyeekoo yaa ayuha nabi ey yow yonente bi ittaqillaha ragalal yàlla foofu taxaw seetlu gi ngay njëkk a def mooy mbokk yi sunu borom dafa xormaal yonent bi saa sallam bii xeeti orma boo xam ni yow bu fekkee wax nan la ko ba nga xam ko rek léegi yow loo def joxati yonent bi ci orma rek jamono jot da nga koy xeeb gis nga mbokk yi muhammad ñaari yoon wala ay yu néew la ko sunu borom tudd ci alquran tudd turu alam bi te dafa am sama su tax mu tudd ko nekkoon kinaaya la koy jox bi mbir yi demee di sikk sàkk ci yonent gi nga xam ne yonent bi ab jëmm la ko yàlla y jox te kooku dafa war a am noo ñu xam ne mooy diw mbir mi dafa leer explication bi suñu paree kenn du laaj foofu faw yonent bi tudd turam mooy wama muhammadun illa rasul fee dañuy sikk sàkka yonent bi ak ay gaayam te moom benn personne la nekk njiit ah faw ñu sëpp ko sëpp ko ci kanamu mbooloo mi maanaam wane ko ci kanamu mbooloo mi nit ñi xam ni kii la mooy njiit li lu baax lii balloo ci ñii kii moo koy jàngale faw ñu tudd turu alam bi ñu ne muhammadun rasulullah bu jeexee jeex na yaa ayuha al mudathir yaa ayuha al muzammil yaa ayuha al nabi ah gis nga de borom xam-xame dañuy wax ni ku ne bala yàllay tudd ah jël yaa un nida dafa tudd sa tur ba mu des muhammad yaa isa mu ni inni mutawaffiika wa raaficuka ilayya yaa muusa mu ni innani ana allah yaa yaxya xuzil kitaaba bi quwa yaa zakariya inna nubashiruka bi gulaam noonu nga koy toppee ba alquran di jeex ku nekk yàlla day tudd sa tur bu lay woo eey nga siggi mun la diw yow laay waxal waaye loolu sunu borom defu ko yonent bi déedéet mën na ne yaa ya yaa muhammad qum fa anzir yaa muhammad qumil layla illa qaya déedéet yaa ayyuhal muzammil ee yow mi sàngu borom xam-xam ñu ne loolu ci orma yi sunu borom di jàngale ñu war koo jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ngeen fàttali ko xutba woon nañ fi xutba joo xam ni xolub mawduu ba moo nekkoon hal addaynaa xaqal mahabbati fi rasulillah ndax ñun dëgg dëgg dëgg li ñuy askanoo ni ñoo ñuy góorgóorlu ci sunna est-ce que ak yonent bi am ci ñun dëgg dëgg dëgg jox nañ ko ko xutba jooja jar naa delluwaat bu baax defe naa mbokk yi enregistré nañ ko ndax boo ca delloo lim bañ ca lim ca saxaaba ya ni ñu doon xoolee yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xool ñun ni ñuy xoolee yonent bi ci ngay xam ne mbokk yi orma ji jox yonent bi xaajul bay mat sax bañ naan des na xaajul bay mat bal kay nit daan dëkk ak moom sax nag faatu jot ñu wax la melal la yonent bi nga ni mënuma kaa melal comme ni Amr ibn al-As wax lu tax muy dama kaa rusoo na rusa rus jox ko orma ba su ma siggee xool ko mooy xool rek may sëggaat orma ji yeggoon na ci lépp lu yonent bi bëgg-bëgg naa ko yéen a ngi fàttali ko qissab Abu Ayyub al-Ansari yi nga xam ni këram nii la meloon taaxam kaw taaxam suuf yonent bi gileem nga ñëw ba buntu kër Abu Ayyub mu yës fa ca gàddaay ga abu ayub mu ne yonent bi yéegal ca kaw nga tiim ma ma yéeg ci ma toog ci suuf yonent bi ni ko déedéet jëlal la gën a baax ma jël fii texit baaxut de gis nga texit li gën a yées mooy kilifa gu texit te kilifa yu texit lañ bari la nag koo xam ne loo ko jox rek man dama ko yeyoo doomu aadama doo def loolu déedéet cëri duñ la jox yépp nga jël lépp kilifa gu texit bokk na ci li gën a soofal àddina yonent bi alayhi salaam jàkka ji kaay ñu may la ko mu ni déedéet bi saman jaay leen ma ko ak a am solo fiqhu daaw bu rëy ma nga foofa daaw boo koy tàmbali te nar ngaa téqatal ñu bari buñ la mayee ay moyen gàntalal parce que kala may ay moyen bis bu demee ba néex a toog bu nee la jox ma sa daaw a delluwaat zéro yonent bi xam na li muy def sallallahu alayhi wa sallam gis nga de abu ayuba yonent bi wax ba abu ayuba yéeg ci kaw guddi jot mook soxnaam ñu ne ñoom duñ tëdd parce que xamul fan la yonent bi fanaante bëggu ñoo tëdd tiim ko dañuy lal fii bay waaj a tëdd ñu xalaat ni est-ce que du yonent bi fi la tëdd ñu ne nañ lal fa ca des fi ñuy wëndeelu ba mu yàgg rek ñu ne tëll ndaala ndaala ni këlëb toj abu ayuba nee na ma summi sama mbubb mi nga xam ni su ma ko nappee ndox mi suba su ma xëyee du ma am lu ma sol mu di ko napp ndox mi ndax nee ndox mi lay bañ mu siit ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñu yeewoo yonent bi ne abu ayub sa kurkur ji dem bari na de lu xew mu ne ko gis nga yonent bi dama lay ñaan ngir yàlla rek yéegal ci kaw ma dimbale ma rek yonent bi doo aboo yam ni ko déet defal li ma la wax rek bu explication bu ko ci doole abu ayuba togg añ tibbali yonent bi alayhi salaatu wasalaam añ añ bi am laaj yonent bi tiim ko daal di suur ni saxaaba yi lekk leen abu ayub ni ko waaw yonent bi lu tax lekkoo sama lekk mu ne ko dafa am laaj te man damay déyante koo dul déyante muy jibril mu ne ko a xaraamun hu ndax dafa araam mu ni ko déedéet laaj araamul de waaye man maa ko lekkut ndax li may dajeeg malaaka mi abu ayub ni ko idan akrahu alladi takrahu ya rasulallah bis ni ki tey banaa lekk laaj kon loolu li nga ciy déggee mooy ñoom dañoo àggoon ci bëgg yonente bi foo xam ni ci lépp lañ ko doon topp sallallahu alayhi wa sallam loolu benn misaal la ci rek daanaka qatratun min bahr mi ngi mel ni toq boo génnee ci biir géej ndax saxaaba yëpp noonu lañ meloon ya ayuha nabi orma jooju lay wane e yow yonente bi alayhi salatu wasalaam nga xam ni da ngay dégg wax ji xam ni ak cofeel am na ci e yow yonente bi ittaqillaha ragalal yàlla mbokk yi baatab ragalal yàlla day ñun tey nga koy wax diw ragalal yàlla mu ne dimbali ma waaw ñun loolu la ñuy wax ragalal yàlla mu ne toppatoo sa ragal yàlla te nga bàyyi saa gos diw ragalal yàlla nga ni i yow man nga ragalal yàlla allahu akbar xoolal giig dofe dëgg nag yow ki la wax ragalal yàlla tey da nga ko waroon jox jox kado yaa xi ragalal yàlla i yow man maay sa morom moo naan ragalal yàlla yow yaay kan ba kenn di la wax ragalal yàlla te yàlla wax ko yonente bi alayhi salatu wasalaam moo tax kenn ci magi salaf yi dafa firi ragal yàlla wax ci wax ju am solo mu ni at taqwa ragal yàlla subhanahu wa taala day mooy an taamala bi taati llah ala nuurin min allah ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف مخ... تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى مخافة عذاب الله dafe naa su fekkee juumuma talq ibn habib moo waxoon wax jooju talq ibn habib biñ ko laajee lan mooy ragal yàlla mu ni ragal yàlla de mooy ngay topp yàlla te topp gi tege ci leer ngir yaakaar goo yaakaar ëllëg mu yërëm la ci sababu ragal googu ngay moytu mooy yàlla te mooy gi bàyyi gi nga koy bàyyi tege ci ragal yàlla ngir tiit goo tiit ni ëllëg mën na laa mbugal ca bàyyi gi nga bàyyi ragal yàlla mbokk yi Amar ibn al-Khattab ponkal mu njool moomu te am doole dëgër fit ragal yàlla ba iblis di ko daw borom xam-xam yi dañ ni boo ko bëggee jooyloo rek da nga koy bett ci ginnaaw rek nga poñe fii gësam ko ni ko Omar ragalal yàlla boo ko waxee day pët pëti ci sa kanam mel ni allahu akbar gis nga ginaar gu ñu gu ñu rey ba noppi ni muy pët pëti noonu la Omar di def Omar mas nay dox ci Madina ba mu yàgg benn meer dab ko maire bi ni ko nikk fii Omar ibn al-Khattab ragalal yàlla may wax ngay dox di sa saagar saagari barki démboo njaay ci sama kanam gone gu xonq cooy nga fi woon di foo xale yi ñu lay wax Omayr nga dem ba mu yàgg ñu naan la Omar nga dem ba mu yàgg ñu naan la amirul muminin tax ngay cukkat cukkati billahi boo ragalul yàlla ba yàlla jàpp la Omar jooy jooy yu métti daal di gestu ni ko waxaatal ñi mu àndaloon mu ne leen xam ngeen kii ñu ni ko déedéet mu ni kii mooy ndaw soosee nga xam ni allahu akbar mooy ka yàlla nekk ca asamaan sax di wax naan dégg naa ay waxam qad sami allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha am na beneen riwaaya bu ni déedéet du kooku ummu ayman la ummu ayman moo ko defoon loolu ragalal yàlla ittaqillah ragalal yàlla baat bii de kenn ku ci nekk waroo xaar ñu di la ko wax da nga ko war di wax sa bopp ittaqillah ragalal yàlla aka ak aka yomb ci suñu làmmiñ ragalal yàlla waaye di ko foyee mbokk yi baat bi du baat bu nuy foyee déedéet baat bi du kafukaay kuy kafe da ngay kaf lu mat a kafe baatab ragalal yàlla dafa war a diis ci yow comme ni bëri gu diwlin di diisee ci yow wuñ la ko yenoon ragalal yàlla ndax xam nga baat bi bu doon peese poids bi ni muy toll yaa ayuha nabi ey yow yonente bi ittaqillaha ragalal yàlla wala tuti al kafirina bul topp yéefar yi wal munafiqina ak naafiq yi yéefar yi comme ku mel ni Akrima ak Abil Awar as-Sulami ak Aba Jahlin ñoom Aba Sufyan ñoom gaa yooyu nga xam ne ñu doon ñëw ci yonent bi naan ko waaw da ngay ñëw ñu jaamu sa yàlla ji am at bu déwee ne ñu jaamu suñu yàlla ji gis nga de nga yaakaar ne yow bu ñu la ko waxoon yow affaire bi daa yomb da ngay jékki-jékki rek nga ni déet du ma ko def gis nga mbokk yi ñun léeg-léeg dañuy natt suñu bopp fu ñu yeggut baat bii bu fekkoon yow lañ ko wax kaay jaamu xiram ren déwén nga jaamu nga ni i loolu kay du ma ko def commencé wóolu sa bopp yàlla nee na yonente bi walaw laa an sabbat naaka bu dul woon ak maa la téye dëgëral la laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila boo amul sens rek nga rëcc dem ci ñoom subhanallah fan la xoolu yonente bi toll ci poids ngëm yàlla ba suñu waram naa ko bu dul woon ak maa la dëgëral bu ñu la wooyee nga fekki leen yow nag bu dee yow nga wóolu sa bopp moo tax mbokk yi wóolu sa bopp baaxut de déedéet waddu law tudhinu fa yudhinuun ñu ngi bëgg nga nooyal tuuti ñu nooyal tuuti waaye lànkal de wala tuti al kafirin bul topp yéefar yi wal munafiqina ak naafiq yi comme Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak gaa yi ca des Abdullah ibn Abi Sarh wala Saad ibn Abi Sarh Abdullah ibn Saad ibn Abi Sarh ñooñu nga xam ne ñoo leen kon naafiq yi di jéem a téqatal yonent bi di ko galgal sunu borom mu ni ko ragalal yàlla te bu leen topp inna allaha sa borom yàlla kaana dafa nekk aliman di ku xam waaye xakiman di ku xeriñ suñu borom xam na ni boo leen jegee tuuti mën nañoo def ci yow am lënt waaye xabi xakiman ku xereñ la moom suñu borom ku xereñ la moom suñu borom ci ay def defam bàyyi yéefar yi ñuy am doole bàyyi bàyyi bàyyi naafiq yi ñuy am doole ba pare di dimbale jullit ñi tekki te ni jullit ñi yéen a nekk ci dëgg lu ko teree faagaagal ñële loolu lépp ci xereñ ak sunu borom gi la bokk gis nga arab yi nee nañ wa bi diddiha yatabayanu l ashyau ci safaan yi ci la mbir ya di leeree tey bu ñu lay leeralal guddi xamoo luy guddi dañuy bàyyi ba heure bi ba cëg jot ñu ne leen lii leer mooy safaanu guddi kon boo loo gisati mu lëndëm da ngay xam ne loolu la gis nga su nit ki dee gis yéefar yi ak bokkaalekat yi day tax mu gën a sant yàlla ak naafeq yi xa- bi ko ci suñu borom génnee boolewu ko ci suñu borom mu ni ko wattabi na nga topp maa yuuxa ilayka li ñu wax yu ci yow loolu de mooy xanaa ittabi alqur'ana wa sunna mu jeex de mbokk yi li lañu yàlla sant de aaya ji tamassak biha wa adda alayha binnawajizi aaya ji mooy ci de nga këf ko ak say dëgëj tey ku nekk ngay woote ci li muy woote te ku nekk nan moo nekk ci dëgg kii nan ku jàppul ci fii jàppoo ci dara kii nan ku langul ci ginnaaw diw àllaaxira di nga tàbbi sawara ku nekk ak say wax waaye yàlla la wax leer na de wattabi na nga topp te xitaab bu jëm ci yonent bi rek bu bokkul ci xusuusiyaa di ñun ñëpp a ko bokk wattabi na nga topp maa yuuxaa ilayka liñ la wax yu muy alquran ak sunna bul topp leen lu dut moom al ilmu qaala rasuluhu qaala allahu qaala rasuluhu qaala saxaabatu laysa bi tamwili xam-xam dëgg-dëgg mooy yàlla nee na yonent bi nee na mbaa saxaaba ya ko déggoon ak ñañ jàngal gis nga de al ilmu ma kaana fihi xaddathana comme ni ko Shafii waxee toxal na jële ci suñu boroom wala yonent bi wala saxaaba yi wala yu demee noonu wa ma siwa daaka waswaasu shayatini jeneen wax judul jiite wuuteeg ji xamal ni jax-jaxale shaytaane la joggi ko jàll te bu ko faaleeti suñu boromu ni wattabia na nga topp maa yuuxa ilayka li ñuy wax ci yow kon jéemal a fexe ba xam alquran lu mu la jàngal ci masala mi nga toll lu ci bàyyi diw wax ak yooyu bu mu la yitteel déedéet xanaa day fekk kay bàyyi diw day wax di dëggal la ci yàlla wax akub yonenteem wattabia na nga topp maa yuuxa ilayk ayat yu mel nii nag moo tax ñu bare bare bare duñ duñ bëgg di firi alquran fii ci Sénégal am na fi ay xeeti yoon yoo xam ne da ngay dégg ku nan sëñ diw dañuy tere firi alquran nee na nga sol daal di al daal di weñ di daw di daw da daw ba daal di dagg moo gën ngay toog di firi alquran xoolal waxi dof yi mooy lan li may wax lu am la ay nit a ngi koy dund ba fii may toog di wax ak yow lan moo tax parce que alquran day jeqi nag moom day jeqi nag moom di jeqi rek lii bokku ci lii ñuul na si pil sànni li gis nga te dafa am ñoo xam ni yooyu arrangé wu leen ak topp yàlla lañ koy defal subhanahu wa taala ak yonenteem atiu llaha wa atiu rasul topp leen yàlla topp yonente bi gis nga bu amoon kenn ku ca topp xam nga ku muy doon wa ulil amri minkum mooy ki nga xam ne moo jiite nekk amirul muminin nga xam ne moo jiite julliti addina bi fa in tanazaatum fi shay'in bu wuute amee nag fa rudduhu ila allahi wa ila rasul del leen ko ci yàlla ak yonente bu leen laaj xalaatu kenn gis nga de kon borom bi subhanahu wa taala dafa digal nañ jàng alquran di ko tadabbur di ko seetlu te loolu buñ ko firiwul duñ ko mën a xam ndax daanañ firi alquran ci jamono yonent beeg yooyu defe naa laaj ko moom waxi daf dëgg dëgg dëgg mooy loolu ndax lii nu tiim seeni wax la ñoom ñoom salafa saalih de ñoom ñoo daan jàngale jàngale yii ah abdullah ibni abbas nee na laaj naa yonent bi alayhi salatu wasalaam lu bare ci ay aaya ci alquran akrima ndongal ibni abbas nee na tàmbali naa baqara ba naas deux fois aaye bu ne damay taxaw ni ibni abbas lii lu muy tekki mu di ma ko firi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari yi wane ni kon doonañ firi alquran te loolu mooy li wér sunu borom ni inna allaha sa borom yàlla wattabi na nga topp maa yuuxa ilayka liñ wàcc ci yow min rabbika bàyyi ko ci sa borom inna allaha sa borom yàlla kaana dafa nekk bi ma taamaluun ci li ngeen di jëf xabiiran di ku ci dañ kumpa inna allaha kaana xabiiran bi ma taamaluun suñu borom dañ na kumpa ci mboolem li ngeen di def gis nga mbokk yi aayaat yi wane ne suñu borom ku dañ kumpa la ci li ñuy def war naa tax kenn ku ci nekk mu xoolaat ay jëfam ndax li nga jàpp ni nit ñi xamuñu ko su ko nit ñi xamul yëgal ni borom nit ñi xam nan ko li nga feeñal mu wuuteeg li nga nëbb loola yàlla moom aalamu bi ma fi suduril alamin yàlla xam na li nekk ci biir dënnu jaam ñi suñu borom nee na yonent bi ittaqillah ragalal yàlla benn njàngalee ngoog wala tuti alkafirina walmunafiqin ñaari njàngalee ngoog wattabi ma yuuxa ilayka min rabbik ñetti njàngalee ngoog ñeenteel mu ni ko watawakkal ala allah moo tax ñeenti dëgër laa yii jullit bu nekk war na koo góorgóorloo ci tàmbali bopp suratul ahzab watawakkal na nga wàkkilu ala allah ci yàlla wa kafa doy na billahi ci yàlla wakiilan ab wéeruwaay wakiilul ci yàlla nga wéeru ci yàlla a tawakkul waxoon naa ni min manazil sairina ila allah liggéey bi nit di liggéey ba mën a am cër ca yàlla bokk na ci mooy wàkkilu ci yàlla ndax wàkkilu mooy jënd sab xamis taqoo jàkka ja amul liggéey tey ñaanaatu ñu lay dundal déedéet loolu tawaakul la tawaakul mooy wékku ci kaw nit ñi boobaa gën a bon ki xëy sole dàllam ferme ko liggéey nga xëy sol say dàll caraxu ko dem jàkka ja toog di jullee ko jàng alquran ki wàcc ñëw indi joxe ndugg ñu togg añ kookaa la gën fa yàlla loolu la yent bi wax de kookaa la gën fa yàlla al yadul ulya xayrun min al yadi sufla loxo bi féete kaw di joxe moo gënal yàlla bi féete suuf te ci lépp nag moo tax jullit war a def tawakkul tawakkul mooy ittixaadul asbaab wa tarkul amri ila al musabbib wa huwa allah sabab yi da nga koy jël ba noppi bu def examen révisiel soo paree demal soo demee defal la ca des mooy wàkkilu ci yàlla waa ji bi mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne ko waaye xanaa andi woo war waay mu ne ahankay gileem la anamu mu ne ko ma nga ca feema yeew bàyyi naa ko ma nga ma nga fee ma bàyyi ca àll ba bàyyi naa ko ak yàlla wàkkilu naa ci yàlla mu ne ko demal nga yeew ko ba mu dëgër nga doog a wàkkilu ci yàlla noonu la de jaasi jaa ngi nii boo tegee sa loxo buñ dóoree da ngay dagg nga ni wàkkilu naa ci yàlla dóoral bu daggee yaa dagg sa loxo de wàkkiloo ci yàlla de déedéet nangam ji ku ko naan da ngay dee te muy dëgg nga ni wàkkilu naa ci yàlla jox leen ma ma naan ah déedéet yooyu mu bokk ci wàkkilu nag moom yent yàlla mais su ngeen doon wàkkiilu ci yàlla comme ni picc di wàkkiiloo dëggi-dëggi wàkkiilu suñu borom wërsëgaleen comme picc ni mu koy wërsëgalee mbokk yi ñaata picc ñoom ci àddina bi ñoom tan ak ramatu ak Moussa Njuguri ak yan xeeti picc kelaw tew xëti xam ngeen yooyu xeeti picc ci àll bi jàmm jóob baaxoñ gis nga de gis nga yooyu xeeti picc niñ baree kan moo yor seen budget at ban entreprise la ñuy jëlee li ñuy lekk sunu borom mu ne tax yonent bi ne tax du ximaasan day xëy talal ay laafam ni yàlla maa ngoog wataaral xobi taanan balaa duggaat ci kaafam day fees dell mu suur gis nga wakiilu ci yàlla ak am solo mooy ittiqaadul asbaab wa tarkul umuri ila al musabbib wa huwa allah jël sabab bi ba noppi bàyyi la ca des ak sunu borom moom mi sabab su ko defee kon wa tawakkal ala allah na nga wakiilu ci yàlla wa kafa doy na billahi ci yàlla wakiilan wéeruwaay waaja daa amoon soxla mu ñëw ci moroomam ni ko ah man kat damaa am problème mu xaalis ma bëggoon nga lebal ma nangam waa ji mu ni ko nu ma lay lebale te man xawma la kuy sa seede ni ko yàlla ci kaw wéeru ni ko yàlla ku la garante mu ni xanaa yàlla man awma ku ma indi waaye firaasa bi mbokk mi am ci moom xam ni kii li muy wax dëgg la mu yëkkati ni ko am waaye bis sàngam na nga ñëw fay si ma mu ne ko bismillah waa ji dem diggante ki leb ak kañ leb ak dex moo dox seen diggante kon faw gaal yóbbu la bis ba jot mu mel ni bisab tey waa ji def sabab liggéey na ba am lu mu fayee bor ba déglu bu baax liggéey na ba am lu mu fayee bor waaxu ba ca géej ga di upp gaal gu ko yóbbu pour mu fay bor mu taxaw ba heure bi passé te gisul gaal gu mu yéeg mu dem far bantu xat wala lu ne nuru da bantu ñambi suukar nga xam ni boo ko xetee ci biir am nag lekk gu fay génnee gaa yi xam nan ko boo ko génnee ab bën bën a fay des gu mel ni tuxura nga xam ni mën nga caa dugal la nga cay dugal mu jël xaalis ba roof ko ca biir dal ni yàlla keroog yow laa defoon seede keroog yow laa defoon ndimbal te awma gaal te awma meneen pexe pexe jeex na wàkkiilu naa ci yow yóbbul ma xaalis bii ca borom mu jël bant bi sànni ko ci géej gi dem yoonam waaw kay na waaw mën naa nekk nag parce que dafa jël sabab yépp ba mu jeex ba pare waaye bu doon ñu ne boo jëlee sabab ba mu jeex it boo ko defee gàcce fekk la ca de boo ko defee ñàkk sa xaalis de parce que ngëm yàlla gi léeg-léeg da ngay foog ni mi nga ca kaw fekk déedéet xaajalul sax waaja taxaw ca tefes ga ba mu yàgg mu ni ah sama waaji li ma waxoon defu ko de waaye nag wàkkilu ci yàlla maa ngi dem bi mu demee bay dem seen ponkalum bant buy tëllëx tëllëxi ci biir géej gi ñëw mu ne xaaral ma xaar ko bu ñëwee ma yóbbul ko jigéen ñi ñu toggee ko añ bant bi yegg si muy bant bu dijji mu jël ko ŋàbb ko yóbbu àgg ba kër ga gis ni bant bi dijjaay bi mu ne su ko dugal ci taal bi mu ne xaaral ma jël sémmiñ xar ko mu jël sémmiñ xar ko fekk fa xaalis ma waaw wa man yatawakkal ala allah ku wàkkilu ci yàlla fa huwa xasbuhu yàlla doy na la waaw waaw yàlla doy na la de wàkkilu ci yàlla jël say sabab mboolem sabab yi nga jàpp ni boo ko jëlee mucc bu dee dikkee def ko bu soxla dikkee def ko su ko defee yàlla doog lay dimbali waaye yaacaarale te naa wàkkilu naa ci yàlla déedéet sunu bara mu ni maa jaala allahu yàlla defalul li rajulayni rajulin ñeel benn waay min qalbayni ci ñaari xol fii jawfihi ci biiram yàlla defalul kenn ñaari xol déedéet mën a xalaat fii xalaat fee xalaat fële déedéet mënta nekk doomu aadama benn xol la ko yàlla jox ay ji nag borom xam-xam yi wax nañ ci ay sabab lu mel ni yéen sa san doon jàng ba mu yàgg mu dal di juum yéefar yi naafiq yi naan daa am ñaari xol bie ngi fii bee nga fee xadis boobu dafa daif wax nañ ci yeneen i sabab waaye sabab si gën a leer mooy aaya ji tamhiidin li tamhiidun li masalatin sa yati suñu borom day fàkkal ab masala pour mu yegsi te ba léegi bokk na ci diqatu fiqhi al quran mooy gis nga am na masail yu rëy yoo xam ni soo ko bëggee jox nit ñi bala nga leen koy jox da ngay wut laytaay ba pare loolu da nga koy jàng ci alquran gis nga am na mbir yoo xam ne kenn du yegg si ni ko rës ci kanamu nit ñi faw nga wutal ko laytaay arab yi dañoo amoon aadab doomoo ku dul sa doom nga jël ko def ko muy sa doom nga xam ne boo dee da lay donn atteeb doom lañ koy jël te loolu fooroon na ci ñoom foor goo xam ni xëy dindi ko daanaka mook tukkal àddina bee yem sunu borom xoolal sunu borom nga xam ne bu ko neexoon day ñëw wax loolu mu jeex ku bëgg sa affaire la ku bëggut sa affaire la waaye ba léegi alquran ñun la ñëw pour jàngal ñu bu leen fàtte loolu tamhid day ñëw moo tax ah xam naa ne day sàngara wóore carte ay yu bon la mooy tundiku leen ko gars yi ne ah comme lu bon la nañ bàyyi kenn ah man de gars yi xaar maa xaaral ci kanam beneen ay ñëwaat mu ne ah am na ay njariñ am na ay lor waaye lor yaa ëpp waa ji mu ne ah man de comme am na tuuti njariñ xaaral ma jël ñu demaat ba mu yàgg nag sunu borom xëy mu ne innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuhu baleen ko mu jeex gis nga de étape par étape lan jaar ba xëy biñ ñee banaka nañu intahayna ya rasulallah banañ ko bis ni ki tey loolu nag daay bu nekk war na koo xam am na masail yoo xam doo ñëw rek di xëpp ko kaw nit ñi déedéet xaatibu naas ala xasabi uqulihim tamit su ko defee sunu borom wane ni comme doomu aadama maa jaala allahu li rajuli min qalbayni fii jaw fi benn nit mënta am ñaari xol wa maa jaala sunu borom deful azwaajakum allaa'i seen soxna yi nga xam ni ah tuzaahiruuna minhunna maanaam yéen a ngi leen di defal zihaar zihaar mooy jigéen mere borom këram ni ko yow su ma nammatee ànd ak yow ànd ak sama baay ma ko gënal wala góor gi te góor ay ëpp lu mu koy def ni su ma nammatee ànd ak yow ànd ak sama baay ma ko gënal ànd ak sama yaay moom ko gënal nga xam ne wax ju ñaaw la ju sibu ju bon junjoon naa ko ci suuratul nuur junjaat naa ko tey wala ma nga ca suuratul mujaadala ndax looloo ko taxoon a jóg moo ko taxoon a wàcc waaye daal kàddu la gu bon goo xam ni ku ko wax suñu borom ni li nga wax ay kàcc la ndax jigéen ji mënta mel yàgg ma mel ni sa yaay comme ni nga xam ni jigéen ji boo ko waxee ni yàgg sama yaay laa yemale du ma yàgg ma mel ni sa yaay comme ni nga xam ni góor du mën a yore nit du mën a yor ñaari xol sunu borom mu ni subhanahu wa taala wa ma jaala yàlla deful adiyaakum doom yi ngeen di doomoo abnaakum ñu nekk seeni doomi réalité yu wér déedéet daalikum jëf jooju qawlukum seeni wax la rek bi afwaahikum ci seeni xol kon lii la aaya ji doon tamhiid dëppaatal sunu borom mu ni maa jaala allahu li rajuli min qalbayni fii jaw fi gis nga doomu aadama mënta yore ñaari xol mënta yore ñaari xol de déedéet jàngal quran ak déglu waxtaan mënuñoo ànd déglu conférence ak di wuyu ci ay portable mënuñoo ànd bañ nga ko nag sax bar ah man de gisaguma xaw ma ndax yéen gis ngeen comme déet nag bennaay boo xam ne day déglu rajo mu jàpp wala fajiri Sud FM ak yëpp teg ci kanam di déglu ñett yëpp gis ngeen xam nga loolu nit ñi duñ ko xalaat daanaka ku ko def moom dañ lay yuuxoo moom dof baa nga parce que xel yi nangu nañ ni nit mënul di concentré wu fii di concentré wu fee di concentré wu fële dëgg la nag man nga kaa jéem waaye boo ko doon jéem it lay sotti leen dong la mooy day am fii rëcc la lee rëcc la waaye pare nga di dara rëccuma ci yëpp déedéet loolu moom mënta nekk moom mënta nekk yàlla defalu la ñaari xol benn xol la la defal su ko defee doomu aadama buy concentré wu ci lenn da koy jox ful la ba mu jeex mu jàll ca la ca des beneen bi mu ni sunu borom ni wa maa jaala deful azwaajakum seen soxna yi allaa yi nga xam ne tuzaahiruuna minhunna yéen a ngi leen di zihaar ummahaatikum di seen yaay jigéen lu mu mer mer mer mer na am maîtrise xam li muy wax góor lu mu mer mer mer na am maîtrise xam li muy wax gis nga laysa shadidu bi sura jàmbaare nekkul ci sawaay entraîné bay toll nii comme am mbër di mbuxur mbuxur yi nga xam ni ku ñu wax rek nga sakkub korosé mu daanu loolu islam du mu la compté compté jàmbaare déedéet jàmbaare mooy koo xam dañ koy tooñ mu am maîtrise dañ koy tooñ mu am maîtrise yakzimu ghayza même bu meree da koy wanaasu gis nga de yàlla digg na ci tuyaaba ju rëy ca ajana ki mer mu wanaasu meram su ko defee bu njëkkoon dañ daan faral def nit day mere soxnaam ni ko yow araam nga ma comme ni ma sama yaay araamee subhanallah muy wax ju bon ju ñaaw yoo xam ni dafa dafa dafa dafa dafa rafetul sax dafa rafetul sax dafa am kàddu yoo xam dafa forox ci gémmiñu ko gëm yàlla waru caa génn dafa am kàddu yoo xam dafa forox ci gémmiñu ko gëm yàlla waru caa génn ak loo mer mer amal maîtrise nga xam li ngay wax kàddu bal la de bu xasee génn dootul dellu siwaat addina bi tas na ci ay famille tas na ci ah daf ma rëcci su ma ko xamee woon ni du ma ko waxee noonu yooyu yëpp jëru ko bañoon koo wax ko gën waaye nag sunu borom pour pinikaay yi koy def gis nga boo dof dof loo ba wax ko sa soxna sunu borom mu ni di nga woor ñaari weer yu tegaloo soixante jours yu tegaloo wala nga leel juróom benn fukki miskin wala nga goreel jaam te balaa ngaa laalaat soxna si da nga koy def ba pare waay ba ëllëg ba nga defati ko loolu mooy waay ba ëllëg ba nga defati ko su ko defee kat nit ki dana yaru gis nga noonu la islam di yaree su ko defee kon beneen bi mu ne wa maa jaala deful adiyaakum seen doom yi ngeen di doomoo abnaakum di seeni doom loolu sabab si mooy arab yi dañoo amoon aaday doomoo nit bi maanaa yow kat maay sa baay bu ko defee adduna bi dañ jàpp ne maay sa baay su ma dee da nga may doon acte yépp lañ koy jox loola nag ba léegi pour wan la saar bi duggalante gi ni mu kéemtaanee gis nga ba léegi am na amaan nañ beneen tamhiid mooy Zeynab bint Jahshin mi nga xam ni sunu boroom daf koo bëgg a may yonent bi alayhi salaatu wa salaam te Zeynab nekkoon soxnay doomu jiit leem nga xam ni ku dégg takk ga ni aw pour ñu di indi takk ga nag faw sunu borom tamhiidee lii ba nga xam ni kii du doomam mi ngi mel ni jàmbur bu wàcc soxnaam nga takk ko kese bu ko deful nag bu deful woon lii bu Zayd fasee soxnaam yonent bi takk ko dañ naan doom jaa fase jabaram mu takk ko sunu borom mu ni déedéet du doomam ba ñëpp xam ne du doomam mu doog a maye say say sëy ba moo tax Zeynab doon na wax ni ah ma ne lu waaye wax baax na man moom xam naa ne yéen ñëpp seen bàyyi yéeneen maye waaye man yàllaa maye ca kaw asamaan te wax na dëgg sunu borom moo ko maye ca kaw asamaan mu ni yàlla moo ma maye ca kaw juróom ci kaw juróom tiim juróom-ñaari asamaan ya moo ma may yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ni xëtër xëtër ñëw daal dugg ci biir mu ni ko yow looy def nii mu ni ko yàlla moo ma la may moo yàlla moo ma la may boobu sëy moom moo gën a dëgër sëy yépp moom dafa am benn waaye bu ñuy wax Zayd ibni Xaarisata te xissaan dana ñëw waaye nag moom rek moo am maqaama yi sunu borom tudd turam direct ci biir alquran ci mboolem saxaaba yi zayd ibnu xaarisata rek rek ci saxaaba yi ak li ñuy bari bari nga xam ni mille mille mille mille saxaaba soo demee ci al isaaba fi tamyiz saxaaba lu ëpp dix mille saxaaba ibni hajar tarjamaan leneen foofu ëpp na ko laa wax de dix mille lu ëpp dix mille saxaaba ëpp na ko de dama ko dafa dafa tarjamaal noonu rek lu ëpp dix mille saxaaba tarjamaal na leen fa waaye mennam zaydu kese la turam ñëw ci alquran fa lama qada zaydun minha watara kese amul keneen ku turam ñëw ci alquran zaydu ni mu defoon ba ñëw kër yonente bi incha allah dinaa ko indi ci biir saar wi ndax bu duggee ci bindeb tey bi dana jël suñu waxtu ñaareel bi moom mooy yonent bi da koo doomoo woon ba gars yi dañ doon wax Zayd ibni Muhammad Zayd doomu Muhammad sunu boroom dogal am na jigéen ju Zayd takkoon muy Zeynab bint Jahsh xam ngeen Zayd ah moo njëkkoon a takk Zeynab bint Jahshin bi mu ko waccee ci la takk beneen soxna ummu ayman ca la ndaw sa juddoo woon ca la góor ga juddoo woon nga xam ngeen ni zaydu dafa weexoon tàll zayd dafa ñuuloon kukk usaama weex tàll ñoom ñaar ñu ànd am benn doom bu ñuy tuddee usaama mu weex tàll pour wan la arab yi ni ñu amee woon xam-xam xam-xamu askan deret deret am na ñu ko xam de gis nga àll ba am na paa yoo xam ni tànkab sàcc mën nañ kaa topp ba génneel la am na paa yoo xam ne dañuy dañuy jëkk ci àll bi ni fii de bàyyi diwa fi jaar te fekkee wuñ ko am na ñoo xam ne dañ lay xool rek ni la yow xanaa ci askanu ñoom diw nga bokk waa ji daa ñëw fekk Usaama ak Zayd ñoom ñaar ñu bokk sangu seen ca tànk di feeñ yii xonq mel nip naar yii ñuul mel ni nun mu daal di ni pëkk ni bii ak bii day xawma kan ak kan lañ waaye li bii di weex weex li bii di ñuul ñuul benn bee jur ba ca des fekk Aïcha daa génnoon yonent bi yéemu yéemu sallallahu alayhi wa sallam Aïcha yegg si mu ni ko daw sin gaaw gaaw téef mu ni ko lu xew mu ni ko gis nga benn waaye daal moo fi ñëw fekk ñii sàngu gisul seen bopp yi xamul leen xamul ñum doon mu làmb ñaari tànk yi ni benn bee jur ba ca des te xam nga loolu xel mënta muus ba xalaat loolu ndax kee nga ñuul kukk ki weex taal loolu kon nan xam ni xam-xam la sunu borom nag moom day maye ci nu ko soobee zaydun sunu borom dogal mu wàcc soxna sa yonent bi daal di koy takk te loolu dana ñëw ci bind ba waaye ala kullin yonent bi dafa tabanni woon ki nga xamante moom mooy zaydu te loolu xam ngeen masalam fiq la ndax dagan na wala daganul ahankay daganoon na ci tàmbali lislaam waaye mu jëntal gi yàlla kon aaya ji ci aaya yi ñu nasaxal la bokk aaya yi ñu nasaxal mooy maanaam atte yi ñu nasaxal bokk atte yi ñu nasa ndax alquran dafa am naasix am mansuux te loolu képp kuy jàng alquran war na koo xam aaya ji dañ koo folli aaya jëlee ko folli saar woo dugg ma nees na laa wax ndax aaya ju folli am na ca wala aaya ju folli amu ca am na saar yoo xam ne aay juy folli moo fa am am saar yoo xam ne aay yi ñu folli moo ca am loolu nag lu mat a bàyyi xel la saar wii am na aaya ju ñu folli moom saar bii di suratul ahzab ak atte bu ñu follit kadalik suñu boroom ni daalikum nii ngeen def di ko wax nag xawlukum seeni wax la bi afwaahikum ci seen gémmiñ yi kese di wax diw diway baayam waaye nag wallaahu yàlla yaqulul xaqa mooy wax dëgg gi maanaam suñu borom nag du ñëw di laam laamee comme ni ko nit ñi defee suñu borom moom ay mbiram ay laam laamee ki caaxaan amu ci yaqulul xaq day wax dëgg ah wa huwa te moom kat yahdi sabil mooy ginde ci li nga xamante ni mooy yoon wu jub bi kon masala mi daal di leer kon atte boobu ci wàllu fiq mooy tàmbali lislaam yu bari daganoon te foofu tamit ba léegi mbokk yi nañ bàyyi xel gis nga njàngale yii duaat yi la gën a concerné que awaamu naas mooy am na yoo xam ni booy daawa ay nit faw nga def ndànk-ndànk ndar xëyru xëy sotti comme ni ko la fi waxee bi maana gars yi dañ daan julli ba ci biir julli gi nga ne sa waay yow yow démb ba maa guddee woo fa nga demoon mu ne ahan kay hee démb kay moom kay xaaji guddi laa ñëw mu naa di continuer julleem mbaa nga yegg si ni ñaata rakk ngeen toll ñu ne ñu julli na ñett de benn ñu dese nga naa di continuer yow ci julli gi ñu dem ba mu yàgg yàlla mu ni ha na ngeen bàyyi wax qumu lillahi qanitin fa umir naa ha ani sukut wa nuhina anil kalam naan sàngara gi ñu dem ba mu yàgg mu dañ comme ni ma la ko waxee woon góor bu àndal ak soxnaam te man nii génnul amul sangu set jëru ko loolu amoon na ak yeneen ak yeneen nelaw ba sa xol bi sedd nga jóg julli te amul jàpp loolu amoon na yu bari dafa amoon te yonent bi di ko gis sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daana dégg saxaaba yi nag bu soobee yàlla ak yonent bi kay bu subaa dinaa ko def affaire bi metti yonent bi lool bëgg koo tere parce que loolu daganut waaye nag am na koo xam ni fi mu toll boo ko bëggee tere faw nga def ndànk kaaba gi dama kaa bëgg a toj ndax tabax bi matut daa manqué Aysa ne ko yonent bi li tax tojoo ko mu ne ko nit ñi kaaba gi ci seen xotti bakkan yi lañ ko teg amul yonent bi amul kenn ku ko bëgg a toj rek fitna ngay indi kon ndeke bis mbir dana ñëw nga bàyyi ko ngir dara waaye lu mu màtt rek faaw mu daj ah déedéet loolu moom wax dëgg yàlla melokaanu baaxut la beneen bi ci des mooy bi nga xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam aaya ji ñëw na muy aayatu tabanni nga xam ni balaa loolu sax li ma doon wax sànq mi ngi dégg yonent bi alayhi salaam gaa yi di wax naan bu soobee yàlla ak yonent bi benn jullit daal di tëdd ba guddi mu taseeg benn yéefar benn chrétien yéefar bi ni chrétien bi yéen neex ngeen ma trop parce que seen jikko yi dafa rafet waaye li leen yàq rek mooy yéen ay wax Eesa doomu yàlla la chrétien bi ni ko yéen it neex ngeen ma trop waaye leen yàq mooy da ngeen wax bu soobee yàlla ak yonent bi te loolu daganut ci gént gi de waa ji yeewu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko man de damaa dajeeg ab chrétien mu wax ma lii ma wax ko le yonent bi ne kon ah te te tere gi jot na daal di yéeg ci kaw minbar bi daal di koy tere gis nga yonent bi daana dégg gaa yi naan yonent bi moo gën Muusa yonent bi moo gën Muusa mu ni cell waxu ci dara benn bis benn waaye daal di dajeeg ab yéefar yëgut ca marché ba marché bi ni waa ji ci marché bi mu ni yonent yàlla Muusa moo gën yonent bi rek sa way sakk ko am talaata tar waa ji ñëw boole kook yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la yonent bi ni hey bis ni ki tey nag bàyyi leen ma gënale ci yonent yàlla Muusa bu leen waxati loolu ay yonent bee gën Muusa ak diw a gën diw déedéet yooyu bu leen ci duggati kon yii ay njàngal la yoo xam liñ ciy déggee mooy maanaam nit ñi faw ñu def ndànk bu leen bëggee yar di joxe benn par benn moo tax suñu borom mu ni ud'uuhum wooyee leen leen li aabaihim ca seen baay ya diw Zayd ibni Haarisata waaye bu leen waxati ibni muhammad ibni xaarisata ibni surahil zayd ibni xaarisata ibni surahil qisaam dana ñëw insha allah suñu borom ni huwa loolu day aqsatu moo gën a maandu inda allahi fa yàlla diw doomi diw fa in lam taalamu su ngeen xamul aabaakum seeni baay fa ixwaanukum xam leen ni seeni mbokk lañ fi diini ci diine wa mawaalikum wala ñu nekk seeni péete muy seeni jaam wala yu demee noonu walaysa alaykum déet di leen di fekk junaaxun bakkaar fii ma axtatum ci bu ngeen juumee mooy boo juumee ni diw diwa ko jur diway baayam te fekk diw du baayam waaye ñàkk xam a tax nga wax ko loolu amul bakkaar walakin waaye bakkaar ba kay mi ngi nekk ci ma taammadat qulubukum li seen xol tey li ngeen tey kon loolu tamit atte islam yépp la ku juum wala ku xamul wala ku fàtte dañ koy jéggal waaye ki tey nag moom mu askanale nit ku dul baayam yent yàlla bi nee na bokk na ci bàkkaar yi gën a mag fa yàlla mooy askanoo ci géne goo bokkut askanoo ci géne goo bokkut akabari fii Sénégal boo junjee rek gaa yi xam fi nga jëm fépp nag xam naa ni akabari fii askanoo ci géne goo bokkut déedéet sa géjog bàyyi ci ngay askanoo sa géjog bàyyi ci ngay askanoo booy sant da ngay sant sa santu bàyyi bul sant santu bàyyu keneen déedéet déedéet yàlla bokk na ci lim teralee góor mooy jox ko aw sant gis nga allaaxira sant yi day topp nit ñi ba allaaxira laa wax abaihim ha walladina amanu wattabaatuhum dhurriyatum bi iman alxaqna bihim dhurriyatahum yawma yafiru almaru min abih lañ jiital parce que mooy jiit njiitu kër gi gis nga de kon daf lay topp ba allaaxira bu ko defee ñu bëgg nit ki di askanoo bàyyi ji ko jur yonent yàlla ne bokk na ci bàkkaar yi gën a mag nit ki di askanoo ci kudul baayam beneen bi ci des mooy ndax dagan na nit ki di ah sama doom xam nga loolu waxin la rek fekk teral nga ci jublu wala jox ko cër waaw waaw ibni kathir nee na dagan na ibni kathir ci tafsira mu ni su fekkente ni maanaam comme nit ki naan sama doom wala di way sama baay te fekk amaana buntu teral rek nit ñi xam nañ ne juru la waaye nag ki nga naan sama doom da nga koo yërëm rek wala boog nga doomoo ko bëgg koo jàppale di ko dimbali waaye defoo ko doom atte wuñ ko doom du la doon ñi ñëpp xam nañ ko su booba dara newu ci ndax léeg-léeg saxaaba yi daan nañ ko def diw doomi diw te fekk booba loolu wax la noonu rek juñ doon wax rek di ko màggalee nit ki mu addin def na mën naa noonu andi nga ma leen masalal
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
kon laaye jooju ñu déggee ci ni suñu borom subhanahu wa taala mi ngi nuy jàngal ni doomoo ci boppam atte boobu dañ na te boobu ba muy am nag bu leen fàtte ni nit ki kim doomoo boo dee da koy doon de maanaam zayd ibni muhammad mooy kon bu muhammad dee faatoo zaydu da kaa war a doon loolu lay tekki moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam suñu borom daal di koy xamal ni ko loolu kat balaa bala tut mbokk mi mu ni ndax comme nit ki doomoo ku dul sa doom islaam da koy tere ndax jigéen di wuyoo sant jëkkëram déedéet déedéet jigéen di wuyoo sant jëkkëram waxoon naa ko ci suuratul nuur lu tax lu tax li tax mooy lii yàlla subhanahu wa taala ne uduuhum li abaihim ku ñuy joxu askan nan la jox sa askanu baay te sant ci askan la bokk bu dee ci ñi nga xamante ni maanaam seen aada mooy sant ndax nit ñi kat duñ ko bokkale am na ñoo xamante ni sant du seen aada naar yeeg euh, tu- tubaab yi nga xamante boo demee ñoom ci seen maam lañu ah, famille bi la ñuy jox sant wi genre yu demee noonu waaye ak lu mën a doon ca loola lañ koy askanale bu dee tege na ci lislaam benn ngoogu kon jigéen ji wuyoo sant borom këram jàdd na ngir masala moom beneen bi ci des mooy jigéen ji su wuyoo sant borom këram na yëg ni loolu ci aada yéefar yi la bokk ñu jàng histoire xam nañ loolu almustashriquun yéefar yi nga xamante ni ñoom juweeg lislaam lekk la neex ñooy wax madame diw nangam nga sant ñu naan la madame nangam di wax sa santu jëkkër déedéet loolu yée atte bi yéefar la te yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam juuyoo leen ak ñoom luñ def rek def leen la ca des ku nur nurlu aw nit yaag ñoom a yem man kathara sawaada qawmin fa huwa minhum ku yokk ñu lay nit ca nga bokk yonent bi Musaa na peñëw ba kawar gi def nii mu taseeg yéefar bu ko def sax mu xàjjaat ko ndax bëgg a juuyoog ñoom al allaama ibni uthaymin biñ ko laajee masala mi loolu la wax daganut kon ñetti yëfa ngi noonu yoo xam ne boo ko rajale ak yeneen ak yeneen damaa fàtte waaye maa ngi am yaakaar ci wala àlla cheikh al islam ibnu taymiya laaj nañ ko masala bu mel nii ci majmuatul fatawa su fekkee nekku ca man maa juum waaye am na ci borom xam-xam yi kuñ ko laajit lu mel ni lii ma wax la wax jigéen na wuyoo santu baayam mu jeex borom bi subhanahu wa taala mu ni ah wa kaana allahu sa borom yàlla kat nekk na gafuuran di bari njéggal rahiman di bari yërmande njéggal ak yërmande nag suñu borom moom ku ko bari la mooy lan doon def ci ay njuumte sunu borom kat ku bari jéggal la te bu nu jéggaloo mu jéggal nu yal na sunu borom jéggal nu sunu borom ni annabi yonent bi awlaa moo gën a yey bil muminina ci jullit ñi ci ñi gëm yàlla min anfusihim ci seen bopp wa azwaajuhu ay soxnaam ummahatukum seeni yaay lañ aay ji mooy yonent bi moo ëpp sañ-sañ ci yow ci sa jëmm allahu akbar annabiyu awla bil muminin min anfusihim yow sa jëmm ji yow personne bi sa jëmm ji sañ-sañ bi nga am ci sa jëmm ji yonent bi moo la ëpp sañ-sañ ci sa jëmm ji loolu de nag moom yonent bi rek ko am nag moom bu doon keneen rek ñu ne ko ah boobu moom waxal beneen waaye bii comme yàlla moo ko waxal nag awla moo gën a yey bil muminina ci ñu gëm yàlla ñu min anfusihim seen bopp yonent bi gën gën a yey ci sa bopp waaw waaw ndax nim la yërëmee sa baay bi la jur yërëmee la wala noonu loolu gëm ko xam ko yonent bi nim la yéenee xéewal ak tawfiq sa baay ji la jur yéenee wala lu tol noonu ba pare nag mu bokk ci ñi nga xam ni wala mu nekk koo xam ni mooy jàng aaya yàlla yi li yuxrijakum min azulumaati ila an-nuur wa yahdiyakum ila siratillahi almustaqim gis nga de moo tax yonent bi daana wax ni man maa gën a yey ci jullit ñépp ku dee bàyyi ay ñu la war a donn nan la donn ku dee bàyyi lu ñu war a toppatoo boo amul koy toppatoo maa koy toppatoo ku dee bàyyi bor say mbokk mënuñu koo fay ñëw leen ci man ma fay ko ndax maa gën a yey ca moom allahu akbar loolu day neexoon na lool jamono jooja jamono jooja neexoon naa dund lool ndax dana tax boo dee bàyyi bor sa xel dal waaye ñun ñii de nee naa ko ci faatu boo amul sens xay dal la de dinaay wax mbokk yi lu bare bare bare xaw ma kan moo nar a nekk suñuy abi xataada bu ñu faatoo ndax yonent bi daa tiim néew bi di ko waaju jullee ni am na boro ñu ni waaw fay na ko ñu ni déedéet am na lu mu ko fayee ñu ni déedéet boolewu ciy waxam wëlbati ko dem di ñibbi këram lan moo gën a metti néew bu yonent bi taxaw ba di la waaj a kabbaara jiite foog mu jullee ko ndax da ngaa amee bor moo loolu yépp taxaw di xool abu xataada daw dab yonent bi ni ko yonent bi lu xew ba ngay dem mu ne ko kii daa amee bor te fayuñu ko mu ne ko loolu rek mu ne ko waaw mu ne ko këpp naa ko sama kaw mu ne ko da nga koo xam mu ne ko xaw ma ko waaye foog mu julli gi loolu ëpp naa def dama julli ko maa ko gàddu moo tax ma ne ñun kan mooy nekk suñu abu xataada koo xamante nii même bu bokkul ak yow wala mu bokk ak yow nga faatu mu nangoo jël lépp wékk ci kawam kooko de boo ko fekkoon biir armeel ya amut luñ ko mas a defal ci kaw suuf lu gën a rëy ci moom li nga ko defal tey lu am solo ngoog waaye nag ma al asafi shadid ña ko doon def daanaka jeex nañ yonent bi alayhi salaatu salaam boo gën a yey ci jullit ñi moo tax mu ne saxaaba yi kenn ci yéen ngëm yàllam du mat lu dul maa ko gënal baayam ak yaayam ak i doomam ak i soxnaam ak alalam ak boppam Omar ni ah man de xam naa ne yaa ma gënal yëpp waaye sama bakkan bi fonk naa ko kat yonent bi ni ko des na de Omar daal di taxaw taxaw ba mu yàgg mu ni dëgg dëgg na xalaat naa ba xam ni yow yaa gën a yay ci ñun li ma gëm mooy yaa ma gënal sama bopp allahu akbar te xam ngeen Omar as-sadiq gis ngeen as-sadiqul abdul muxlas yonent bi moo la war a gënal sa baay ak sa yaay ak sa lépp yonent bi nee na bokk na ci màndargay ngëm yàlla ñiy bëgg a ñëw dina ci am koo xam ni buñ ñu ko woon kaay ñu leb saw fan ngir une seconde ñu wan la xar kanamu yonent bi danaan jaral na ma ko ñen am na ñuy ñëw ci mujjug jamono ñoo xam ni kenn ci ñoom dana saisir boppam ba ba kanam bokkaale ca ngir nañ ko wan yonent bi rek mu gis ko rek après mu dee jaral na ko ko mbëggeel gi foofu la toll moo tax mu doon wax saxaaba ya ay waay aka neexoon ku ma jottali li yóbbante ci sama xarit sama xarit yi sama xarit yi mu ni waaw ñun duñ say xarit saxaaba mu ne ahanka yéen samay saxaaba ngeen waaye xarit yi dëgg mooy ñii ñëw ca gannaaw nga xam ni gisuñ ma dañ maa dégg te yemale wuñ ma dara ci bëgg ga allahu akbar yal na yàlla boole ñu ci ñooñu yal na yàlla boole ñu ci ñooñu aka am solo am na ñoo xam ni subhanallah yonent bi àgg na leen fu rëy de fu rëy rëy rëy rëy loolu bu la dalul nag dalaa dalul rek waaye am na ñoo xam ni seen bëgg gi ñu bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam balance boo ko peese balance ba door ndax diis gu mu diis moo tax sunu borom ne yonent bi moo gën a yey ci ñi gëm yàlla min anfusihim ci seen bopp wa azwaajuhu ay soxnaam tamit nag ummahatuhum ñooy sunu yaay nday Aïcha soxna Khadija lim leen aywa ak kan Zaynab bint Jahsh Maymuna bint al-Harith mag ñi daa mel ni gone yee leen gën a neexi xel de Ummu Salama Juwayriya bint al-Harith Sawdatu bint Zamaa Ummu Hayo bint Abi Sufyan gis ngeen de ñooñu ñooy nekkoon ay soxnaam juróom-ñeenti soxna la bàyyi fukk ak benn la amoon wa azwaaju ay soxnaam ummahatukum ñooy sunuy yaay ñooy sa yaay allahu akbar soxna yonent bi mbokk yi suñuy yaay lañ te it nag kaay nga xamal kaay ma xamal la ñaar nag orma ji yonent bi ëppale ci yow soxna yonent bi noonu la ñu ëppalee orma ci sa yaay ci yow fonk boo fonk sa yaay gu ko raw nga war a fonk soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam Ousmane Ibn Hunayf keroog ba muy wommat soxna yonent bi ummu salama di ko yóbbu mu gàddaay ummu salama nee na baa juddoo ba tey gisaguma góor gu gën a ragal yàlla góor gii xanaa bu yonent bi jàllee ñu ne ko lu tax mu ni ànd naag man bañ àgg Madina te gëstuwuma da da da daf may wan gannaaw ni ma yéegal ma yéeg su ma waree wàcc mu wanaan ma gannaaw ma wàcc su ma sonnee mu toogal ma ni ma demal ci garab gee man ca garab gee laa jëm mu ni yóbbu na ba Madina te gëstuwul xool ma allahu akbar ndax ormaal soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga de ormaal soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax képp ku leen toroxal képp ku leen tuumaal ku leen wax lu bon comme ashiatu rafida nga xamante ni ñi gën a bon ci mbindee fi sunu borom yi ci lañ bokk loolu nga xamaale ko ndax xas nday Aïcha radiyallahu anha inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara ñu ne Aïcha la ci yàlla nam yàlla nee na dañ leen digal ngeen rey nag wi ñu ne Aïcha lañ war a rey ak yeneen wax yoo xamante ni ëpp naa wax sax Aïcha njaalokat la Omar ibn al-Khattab ak Abubakar ña nga biir safara li ñuy wax moom looloo ci gën a tuuti looloo ci gën a tuuti Jibril daa juum ndax Ali ibn Abi Talib lañ ko jox la woon risaala gi mu ñëw juum jox ko yonente bi alayhi salatu wasalaam sahaaba yi dañoo ñàkk maal ndax yonente bi Ali moo waroon a toog ñu dem jox ko Abubakar Abubakar daa faqar ñu toog wax yu xamadi yoo xam ni ki reyu Omar ibn al-Khattab tey boo demee dañuy màggal ab armelam comme ni ñuy màggalee tey jii jaamu ko te ñeneen ñi ni ñuy màggalee yi ñuy màggal waaye nag yàlla moom def na subhanahu wa taala jamono bu nekk rek diine li ciy dugg te bokk ci am na ñu koy leeralal ba nit ñi xam lan mooy dëgg wa kafa allahu almuminina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa azwaaju ay soxnam ummahatuhum sunuy yaay lañ orma ji ngay jox sa yaay moom nga ko war a jox soxna yonent bi ñépp a doon muur seeni kanam waxuma la dañ daan muuru muuru bu jot de déedéet ñépp daan muur seeni kanam ndax jàkkaarloog ñoom di leen xool nii déedéet ñuy wax ngay bànneexu seeni wax déedéet wala nga di leen def morom déedéet wala ngay dugg seen néeg te amoo ndigal déedéet yooyu yépp sunu borom da koy tere defe naa leeroon na ci suratul ahzab sunu borom mu ni wa azwaaju ay soxnam ummahatuhum ñooy seeni yaay kon dañ leen war a jox attey yaay wa ulul arxaami mais na ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi bokk ak yow meen xam ngeen luy meen mooy deret askan ñi bokk ak yow askan deret te mu wér nee na baadugum ñenn ci ñoom awlaa ñoo gën a yey bi baadin ci ña ca des fii kitaabillahi ci téere yàlla bi ay ji nag ñun dañ ko bàyyi xel de mbokk deret bi dañ koy faral di sobantal waaye nag am na foo xam ne boo fa tolloo mbokk gu ñëw dootul balaabalati mbokk deret gay balaabal bu nu demoon ba di la suul nag xam nga suul moom mooy fa la mujjee bu nu demoon ba di la suul tey dañ naan nañ topp mbokk jegeñaale yi mbokk jegeñaale yi loolu du aada de mbokk jegeñaale yi loolu du aada de loolu mooy sunna ba ngay dund kon taxut di wax moo tax waroo sobantal mbokk deret gi bi ngay dund de wa ulul arxaami baaduhum awlaa baadin fi kitaabillah ñi nga xam ni ñoo bokk ak yow deret ñenn ci ñoom ñoo gën a yey ca ña ca des te loolu ci téere yàlla bi la kon doomoo gi lu mu foor foor mbokkoog l'islam gi lu mu foor foor mbokkoog deret gi nag islam da ko reconnaître nag dafa foor lool loolu bàyyi ci xel ki nga bokkal deret da ngay gis koo xam day sobantal ki mu bokkal deret mel ni bokkut ak moom ngir fonk yeneen i mbokki jullitam dee du noonu de ñee fonk leen waaye kiit nag yàllaa koo fonk maanaam mbir mi nekkatul léegi yaay fonk yaay bañ a fonk yàlla moo lay fonk loo fonkal kam la fonk loo nga nopp mu jeex moo tax yent yàlla bi nee na ku bëgg yàlla guddal aw fanam yokk wërsëgam te defe naa gars yi loolu rek lañ bëgg nag te ñaar yooyu nag nag lañ bëgg sax faf nag guddal sa fan yokk sa wërsëg yent yàlla bi nee na jokkal sa mbokk ku bëgg yàlla guddal saw fan yokk sa wërsëg jokkal sa mbokk jokk mbokk day guddal fan di yokk wërsëg donte guddal fan gi nag borom xam-xam yi ñu ngi ciy wuute naan guddal fan gi ndax guddal fan réellement la fan wi gën a gudd wa illaa boog leneen la parce que comme yàlla mbindoon dootul soppeeku waaye li gën a dëgër guddal fan réellement la gën a yokk te loolu la Cheikh al-Islam Ibn Taymiya saxal ci ay masailam yu bari biñ ko laajee laaj boobu ndax kat doomu aadama ji suñu borom yamxu llahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab suñu borom mën na laa dogalal ñaari dogal benn bi mooy yow kat supposons war ngaa mën a dund cinquante ans war ngaa mën a dund soixante dix ans ci kaw mi ngi aju ci nga def luy yokk fan wala nga bañ koo def boo ko deful nga dund cinquante boo ko defee nga dund jeex na te loolu mooy li gën a dëgër ci masala moom doonte am na yeneen borom xam-xam yu wax la neen sunu borom mu ni minal muminina moo xam ci ñi gëm yàlla wal muhajirin ak ñi gàddaay ñi ndax xam ngeen saxaaba ya ba gaay yi gàddaayee ñëw da ngay jël kenn adopté ko mu nekk sa doom comme mooy taban nii kee jël kii def ko mbokk maak yow ñu léegi bis ni ki tey da nga naan ko léegi bis ni ki tey ñoo bokk ndey ak baay sama lépp mooy sa lépp su ma dee sax da nga may doon est ce que xam ngeen ni saxaaba yi jógeen Madina Màkka daanañ doon ñi nekk Madina ci commencement mbir mi ginnaaw bi nag ci la sunu borom rëddal boppam miiraas mi ginnaaw bi ci la sunu borom wane ni kat doomu jiitle compte tub dootub doon gis nga de léegi nag illa an tafaalu mbete ngeen def ila awliyaikum ci seen péete yi maarufan njekk kenn terewul la nga def njekk lu dul da ngaa def ak njekk mooy kat su fekkente ni nit ki yëkkati na ay njekk ci alalam jox ko doomu jiitleem ngir kiñ ko doon jiitleen ngir du ko doon wa illaa mu yëkkati ay teraanga defal ko waaw kay waaye nag bëgg koo boole comme ki ma bokkal deret jox ko atte miraas ak yooyu déedéet sunu borom mu ni déedéet illaa taf ilaa awliyaakum maarufa sunu borom mu ni kaana nekk na daalika lii nag fil kitaabi ca téere ba muy lawxil mahfuuz mu ni mastuura nekk lu ñu rëdd foofu mooy lan mooy dafa am atte yoo xam ni borom bi ba mu koy defit réglé masala boo xam ni ñun la koy réglé rek ka taxoon mu def ko waaye nag dogaloon na lam dogal a pare te du soppeeku loolu mooy kaana dalika fil kitaab mastuura bi maana suñu borom dogaloon na ca azal balaa ñu fee ñëw ci ni doomu jiitle moom lu mu yàgg yàgg yàgg du ma sa doon doom loolooy kaana zalika fil kitaab mastuura kon lan moo fi indi ñu koy doomoo mooy li ma la doon junj sànq lépp dafa am masala yoo xam ni faw buñ koy réglé ndànk-ndànk la ñuy def am na ñoo xamante dañoo ñàkk ku leen bàyyoo kon faw ci tàmbali lislaam ñuy yoonal doomu jiitle di doom am na ñoo xam ni muhaajiru ni amuñ ku leen dimbale kon faw ñu yoonal nga mbokkoo muhaajir mu lay doon nga koy doon commencement julli concentré wu gi gars yi cambal cambal gi lañ xamoon ñu mayee wax ci biir julli gi ila axirihi ak ay mbir yu bare bari yoo xamante ni ci tàmbali lislaam amoon na tàmbali lislaam booy jàpp yu bare bare sax yu doon am yu bari yoo xam ne da doon am ginnaaw bi moo tax nag naasix ak mansuux boo ko xàmmeewut doo jug ci toj ay kaas ndax da nga jaxase yu bare bare bari ndax am na aaya yoo xam ni ñi ngi koy jàng ci alquran ba noppi te àtte bi dañ koo nasaxal loolu bàyyi ci xel baax a baax ida naajaytum rasula fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa aaya jooju ba tey mi ngi toog waaye atte bi jeex na nasax na am na aaya yoo xam ni kenn jàngatu ko waaye atte baa ngi woy ba léegi ba Amar ibn Xattaab daan teeñ koo def ci téere bi ndax léegi tey nit ñi ñëw naan bokkatu ci mooy alshaykhu walshaykhatu ida zanaya farjumuhuma albatta wallahu alimun hakim màggat gu góor ak màggat gu jigéen bu ñu njaaloo boole leen leen jam ba ñu dee te ngeen xam ni yàlla ko xerañ la ko xam la atteem bi mi ngi wéy ba tey te aaya ja dañ ko rocc kon nag boo xamewut naasix ak mansuux danaka di nga jaxase lu bari kon nu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq fi dunia wal axira yal na yàlla boole ñu ci min ahli alqurani wa xaasati yal na yàlla nangul ñu baqiyat alsalihat maa salihat al amal wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain